digital comme souvent niñ ñu koy waxee fii nii internet lañ ko tuddee tout le digital internet lañ ko tuddee euh, fondation Orange suñu partenaire la programme boobu ñoom ñoo ko lancé en partenariat mooy fondation Orange en partenariat ak fondation Sonatel di jàppale jigéen ñi ndax ñoom tamit ñu bokk ndax aujourd'hui le digital le numérique li ñuy wax internet mi ngi ci fépp mi ngi ci mbay bi mooy Emagri mi ngi ci santé bi mooy e-santé mi ngi ci aussi ci njàng bi e-learning tey mu nga toog fi ngay toog ngay jàng ay cours koo xam ne nekk fi sax mi ngi bitim réew mi ngi ci commerce bi koom-koom bi e-commerce tey jarul leen jarul dem fenn pour jaay mun nga toog ci sa mbir niir suba ngoon guddeeg bëccëg ngay jaay donc internet dafa am solo bi ñu xamee loolu nag moo tax ñu lëkkaloo ak fondation Orange fondation Sonatel ak fondation Orange lëkkaloo ci programme boobu nga xam ni fondation Orange nag moo ko lancé jagleel ko jigéen yi muy maison digitale maison digitale yi nag boo leen fa nekkee ak ay encadreur yu baax yu xareñ comme association yi ñuy tuddoon sànq pour encadrer leen former leen ci lu ñuy am na ñoo xam ne mosuñu laal ordinateur ndax maison digitale yi ñu fa def mooy def fa matériel matériel bu am solo jàppale leen parce que ñoom tamit dañ leen fekk ci liggéey bi ñu jox leen ay ordinateur jox leen ay tablette ne leen ah ñeen daal lañu ñu wóolu pour ngeen jàppale jigéen ñi pour ñu mën a utiliser internet jàppale jigéen ñi pour ñu gëm seen bopp loolu lañuy wax développement personnel parce que pour mun a am activité boo xam ne mu nga ci suturlu il faut ñu former la nga gëm sa bopp gëm sa bopp boobu nag ma leen koy wax gëm leen seen bopp tàccu leen seen bopp depuis 2017 2017 ba tey jii ça fait 17 ans donc ñi ngi ci ci liggéey boobu liggéey boobu di jàppale set association yu nekk am na ñoo xam ni vraiment ñi ngi fiy teew comme ni ma leen wax kii ñi ngi ci Ouro gi am na ñoo xam ne ngi parcelle naka noonu yëmbal naka noonu géejawaay naka noonu euh, Ziguinchor naka noonu Ngaparou et cetera et cetera ba boobu ba léegi juróomi téeméeri jigéen formé nañ leen formé nañ leen gratuitement gratuitement à l'usage de l'internet mooy pour mun a utiliser ko internet comme ni ñu ko waxee sànq pour ñu gëm seen bopp développement personnel pour gestion financière pour la gestion commerciale ngeen mun a jaay am ay koom-koom am activité yoo xam ni ngeen ci yëngu ba mun ci suturloo di jaajëfal encore suñu partenaires yi ndax sans ñoom du ñu dem ndax ñun opérateur télécom lañu maanaam dañuy indi ci jaayum téléphone jaayum internet jaayum fibre jaayum orange money mbaa yéen orange money ngeen am ah après ñu contrôler numéro yi ndax suñu partenaires yi bu dul ñoom duñu dem suñu partenaire ñu xarañ ci li ñuy liggéeyee ndax yombul woon euh, Orange concours international lay lancé maanaam ay réew yi réew du Sénégal rek de ay réew yu bëri lañuy ñuy ne leen ah ñun de dañu war a def maison digitale léegi yëndu leen seen candidature association sénégalaise yi ñoom ñu xarañ mot woon seen expertise seen xarañ macha allah ñoom ñu remporté Sénégal am ndam donc association yooyu defe naa mën nañ leen tàccu loolu moom wax dëgg yàlla liggéey bi moom daf kon dañu ko yombalal ñu am mbégte lool ci jigéen yi nga xam ni euh, dañu dañu gëm seen bopp ñoo am na jigéen yoo xam ne amuñu chance comme on dit chance dans la vie chance dans la vie xam nga chance yi yëpp duñu benn ah, am na ñoo xam ni amuñu chance yi daf ay jàng yu yu sore am ñoo xam ni pour d'autres raisons tax ñu ñu génn l'école am ñoo xam ni ah xëy na seen waajur yi seen loxo jotul seen ginnaaw waaye ñoo ñooñu ci lañ bokk ci lañ bokk moo tax ñu xalaat ni ñun fondation Orange ak fondation Sonatel suñu wareef la pour ñu jàppale jigéen yooyu ñu lëkkaloo ak ay association yu xarañ yu mën seen liggéey pour ñu former leen gratuitement pour que ñoom tamit ñu am euh, gëm seen bopp am idée wu projet affaire bi du dem rek nekk ci benn entreprise dafa liggéey de déedéet fi ne nii tey ce qu'on appelle l' entrepreneuriat féminin mooy yow ci sa bopp nga am sa propre entreprise te am am sa entreprise sa veut pas dire da ngay nekk ci euh, benn bureau ak yooyu de déedéet affaire bi du bureau de mun nga nekk chef d' entreprise nekk si sa biir néeg di brasser ay millions est ce que xam ngeen loolu. waa kay donc le numérique à travers le numérique ndax mun nga jaay lu ne mun nga jaay sax loo amul jaay mooy amul mooy il faut avoir le marché. mooy nga ngay gis lenn loo xam ne war nga koo mën a jaay def ko ay statut mais man lii laa laa laay jaay jox délai mais fii lekk une deux semaines ma ma ma ma ma jag leen ko ma jox leen ko ma jébbal leen ko et cetera. Parcelles Assainies ñu ngi ciy yëngu ndànk-ndànk formé gum nañu deux cent soixante onze femmes te am yéene def lu ëpp loolu yombul nag ndax ku nekk dans le milieu associatif. di nga xam jàng jafe-jafe yi nit ñi di jànkonteel ci milieu associatif du loo du loo xam ne lu yomb la waaye taxul ñun ñu xàtt yi ndax ñu ñoo ne dañuy def loolu ñu ñoo ko ñoo ko ñoo ko sumb kon dinañ ko fóot ba mu set pàcc ko weer ko paase ko jox ko jigéen ñi. ñi fi nekk maanaam euh, maanaam Sow dafa wax sànq loom solo parce que wax na leen li ngeen mën def ci internet bi wax na leen li ngeen mën def ci ci ci ci euh, ci numérique bi lu ñu leen jàngal rek ngeen ñoo jël jël seen attestation dem toog seen kër xam-xam bi ñu leen di jox daf leen war a amal njëriñ parce que loolu mooy tax a jóg te ñu suñu fierté la bala ñuy kontaan ñu ne ah Nogaye day jaar na maison digitale Moussa Karandi formé nañ ko léegi ma nga bërëb sàngam di liggéey wala ma nga bërëb sàngam di na euh, entreprise am di liggéey am na ñu fi jaar ñu ko fi def ñu ko réussir. ku ci mel ni Penda Mbaye ku ci mel ni euh, Aïssata Diallo nga xam ne ñoom it ils ont euh, maison fondation Orange moo leen gunge financé leen ñu tijji seen commerce ba léegi mu ngi dox Penda Mbaye mi commencé woon ci benn boutique léegi mu ngi ci ñaar grâce à la fondation Orange mais nag attention fu ñu waxee fondation Orange xam leen ne fondation Sonatel ma nga parce que fondation Orange bu ngeen xoolee maison digitale ni muy fonctionner ñoom dañuy jox matériel rek toog fële taxaw di xaar di la seetaan kon fondation Sonatel bu fi nekkul woon tey amul benn maison digitale bu dox Sénégal kon jaaraama yéen fondation